te jiitu weddi aku déng-déng yi nun doomu aadama nun ñëpp li ci ëpp ci noonu la nekk ñu ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak réer kon nu ma war a jugaat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 nu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yaa ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci li bëgg doyloo ko ci lépp loolu mooy sunu wartiif di li nga xam ne moo nuy noppal moo nu li ci lépp